léegi toujours ci seen émission modèle ñu yeggali ci euh, li ma leen waxoon rek bi passé que ni spécial Korité bi dañuy dem fu nekk seeti tailleur ñu wax ñu lan la ñu génn pour Korité 2012 tey Pikine la ñu ñëw seet ci xalam couture ak les frères jumeaux Ousseynou et Assanane léegi asan mo ñuy wax ci couture wax ñu ci couture surtout fi ci Pikine nan la fi couture bi dem waaw fi de ci Pikine mom wax dëgg yalla ci couture ci Pikine dox na fi torop. dox na fi te tamit ñu nango ñawlu lañu dal waa Pikine waaw waa Pikine te tamit ñu mëna gëné ay model lañu. ci model yoy sax la bëgg nga ñëw parce que sen euh, télé carapit.com day def ci émission boy wax ci walum couture bëggoon nga wax ñu ci modèle yi ñu ngi jëm Korité 2012 lan ngeen génne tissu yeeg coupe yeeg yooyu waaw parce que tissu ñu génn palman moo si ëpp ñu daamine ko gorofil ak brodé bu ñu plancé ak mbasin ñoo si ëpp dal ñoom ñoo ci ëpp yooyu waaw waaw boo waxee palman bu ñu def gorofil xam naa ne ñi seetaan danañ gis li ma sol ndax li ma sol waa xalam couture ñoo ma ko defal te palman la bu ànd ak gorofil mu nekk ñaw bu rafet nga ne tuwa piki nangu nañu nyawlu kon ñu bëgg sañse lañu ndax seerul yeen seen ñaw yi fi ci piki ñun nak fi ñu ñaw seerul waa Pikine waaw waaw mhm. parce que ñun mën nañ né sax ñu ñooy moor yombalé parce que nit ku jóge rek daw ñëw piki daw ñëw piki waaw parce que seen ñaw yomb na te seen ñaw garanti na te seen ñaw baxna asan yow buñ doon wat ci sa ci say début wax mu ndax man nga ñu wax sa jaar jaar ba nga nek euh, couturier bu mag fi ci piki ah, waaw sama jaar jaar parce que ya naa si depuis quatre-vingt-sept laa dugg téyeer quatre-vingt-treize si laa beru quatre-vingt-quatorze laa tijji atelier boobu ba léegi nag maa ngi gérer sama atelier yan jafe-jafe maanaam ngay ngay jàkkonteel ci sa liggéey. suñuy liggéey xanaa jafe-jafe financier moom la ñuy jàppante daal. comme mooy lan si. parce que des fois da soxla financement pour am ñi nga xamante ne di nga mën a gérer dégg nga dégg ay téyeer ak tamit ñi nga xamante ne dañ fi bàyyi seen ñëw war koo jël si duñ ko jël si seen ñëw dem bay yàgg fi duñ la jox avant duñ la jox dara léegi ñaw yooyu danga koy mujjee sax maye après parce que doo gis seeni borom mm-hmm. loolu jafe-jafe la taal firu mm-hmm. courant yu bëri yi nga am ay rendez-vous nit ñi war a ñëw jël si seen i rendez-vous fekk coupé courant am doo mën a yeggale seen i ñëw mm-hmm. mi su boobaa dafay demee neneen daal te tamit toujours ñoo ngi tooñ téyeer yi ne téyeer yi respecté wuñu rendez-vous yi wala léegi li te fekk nag dégg nga ñu gëm nañu li ñuy def te respecté nañu suñu liggéey waaye coupure courant yi moo ñuy fausé des fois wala des fois tamit dégg client bi danga koy jox rendez-vous doo ko gis moom mu fausé la te fekk yow respecté nga li ngay def. yooyu du leen indil jafe-jafe ba ngeen ciy dem lu mel ni ay police wala parce que ku fi indi ñaawam war ko jël si jël si ko yow déjà def nga investissement parce que sa ñëw sa wëñ dem na ci. ñawlu ko ba mu yàgg bu ñëwaatee wala mu réer la naka ngeen di résoudre problème yu mel non moom su fekkee moom yàlla dogal na ndogal fekk nañu si dañ koy gérer rek ba moom lu mu jënnee tisi waag lu mu mënta doon rek dañ koy fay waaye dégg si jàmm lu mu fi yàgg yàgg yàgg dañ koy denc rek saa yu ko borom soxlaa su ñëwee ñu jox ko suñu demee ba xamatuñu borom fu mu dëkk gisatuñu ko si dañ koy doog a maye. mais clients yi dañuy dañuy mer parfois ne da ngay jox sa tissu tailleur mu jox la dat nga ñëw fa doo fekk sax mu dagg ko. loolu it problème la lu tax loolu lu koy waral day fekk dégg kii dégg client bi jox la ñaw sa beneen client bi nga xamante ne ñëw na indi ñawu xew ñaw bu jamp-jamp boobu moom mooy indi des fois yow nga fausé client bi wala des fois coupure courant ñëw nga fausé ko waaw loolu dong la daal waaw ndax seen ñi leen di ñaw sil fii Pikine rek lañ yem wala am na ñeneen ñuy jóge si yeneen gox di ñëw Pikine di ñaw waaw am na ñeneen ñuy jóge feneen daal di ngeen di faral di participer ci ay défilé de mode comme ngeen jógee Pikine parce que dañ ne Pikine banlieue la dem lu mel ni biir Dakar bokk ci ay ay jongante yoo xam ne tailleur yi ñoo fay nekk. waaw man bokk naa si défilé dégg Sira Vision 2009 bokkoon naa si daal dégg si kii wala saw arno parce que fii tamit Ravin fi organiser ay défilé chaque année dégg chaque le 30 décembre waaw. yéen yéen yéen couturier banlieue yéen a fay daje. ñun ñun waa daal fédération art et mode. yéen yéen ñoo koy dajale. Mhm, di def seen ay ñaw yi day doon loo xam ne client mooy indi tissu nga ñawal ko wala da ngay ñëw yow tamit daal di exposé ku bëgg ñëw jënd. waaw damay ñaw di di exposé parce que dégg kiliyaan day ñëw tànn modèle léegi si des fois yi soo bëggee génne say modèle bopp yi fond yaay jël say tissu bopp mën a ñëw pour exposé ndax client mën koo gis waaw. waaw. Mhm. ndax loolu parfois dina dinay jar dinañ koy jënd. waaw loolu moom. pas rek si modèle bi parce que so guéné modèle bu rafet mom moom dul taxaw nit ñi dañuy ñëw soxla ko jël ko waaw parce que prix bo leen wax sax mom da leen koy jalal suñu gisé lu nga xamante ne rafet na dal waaw ndax bailleur yi ñi nga xamni partenaire ñoy financer parfois ñi di def petite et moyenne entreprise am ngeen accès ci loolu di ngeen di jot ay financement non ñooñu nag mosuñu jot seen financement dal banki ñun ñoy liggéeyal suñu bop di def prêt da ngi si banki.

ndax mi ngi leen di jariñ yoyu ngeen bok non yeen ngi ci gis njëriñ loolu ñu ci bok il faut ya gene dégg sa moye bopp ndax mën ci am ci sa njëriñu bopp waye su fekke ci ñom dong la mom buñ la jox dara waaw bu fekkon tay ji ni da nga jog pour changer manam yok par rapport ak lu jëmele kanam seen liggéey lan lay doon waaw suñu yok yok mom moy nu ñuy yaatalé rek ba mëna bëggal client yi parce que ñun dégg momatuñu suñu bopp parce que client yi ñu mom seen bëgg-bëgg rek lañuy top karapit nek télé bo xamné sur internet la nek ndax yeen paré ngeen pour jàppale ñu and ak ñun ci aventure boobu. wa parce que ñun lolu dégg duñ yag bëgg la sax parce que lolu su ngeen ñëwee fekk suñu ñu dégg nga da ngeen ñu jappalé rek parce que tamit ñun lu ñuy mën a wane suñuy ba way extérieur ba ñana ñana diko mëna gis dégg daf ñuy neex té lolu dégg suñu ndam lay doon té lolu tamit dañ ciy content dal dégg té épi lolu dañ leen ci jappalé bu baax parce que suñuy njëriñ moom moo si nekk waaw. seen clientèle bu nekk à l'étranger naka ngeen di liggéey ak ñoom. ñooñu waaw ñooñu dinañ liggéey nag ñoom dégg par téléphone dégg suñu soxlaa dégg dañ leen di jox dégg suñu Facebook parce que suñu leen joxee dégg suñu carte suñu vérifié dégg. seen yiñ fa soxla après dañuy woo ne dégg soxla nañu modèle bi modèle bi modèle bi parce que modèle bu nekk dañ ci def dégg ruubu bu mën a daal mhm. waaw. loolu nag léegi xam naa ne dina dañ wax car rapide ay mhm. jeunes sénégalais yu nekk à l'étranger ñoo ko ñoo ko defar te pour jàppale yéen ñi nekk Sénégal ba ngeen mën a jokkoo ak seen clients yi nekk fële à l'étranger xam naa ne dinañ gën a waxtaanaat ci loolu ba ñëw bokk ci awa karapit ñu ngi lay remercier parce que modèle yi franchement rafet na xam naa dañuy wàcc suuf nga wan ñu également ni ngay liggéeyee bi mooy spécial korité magasin bu vert la mu am daamine kii dañ ko refil ak 217 moom lañ ko ñaw daal dégg mu am wëñ bi jaune doré bi mu am wëñ orange tamit la pour dégg soo ba si ngoon duñ ko mën a sol pour mën a dem soirée daal bi tamit robe la robe léegi sifon la mu am garniture dégg nga daal soo korité ba ngoon pour nga yóbbu ko soirée dal waaw bi mom gàññi la la li da mi ko 217 vert frio bi ak vert vert bi mom la ñu bolé dal pour ñu préparer ko dem korité bi dal waaw même xale yu góor yi am ay 3 pièces na ay dégg Macky yi na ay ayo am seen